Euh, réew mi moom dund gi nga xamante ni dund na ko ci biir douane livre yi nga xamante ni euh, génne na ko tàngile ak tamit gestion wu euh, troisième vague bu Covid 19 bi nga xamante ni actuellement moom la Sénégal di dund ñu bari di ci ñàkk seen bakkan ba ñu suggérer nit ñi dem vacciné wu ak tamit problème mu mœurs yi am fii ci Sénégal problème mu civisme ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee ak kile di Badou ndaw ñu lay nuyu di la dalal jàmm wala le médiateur. waaw. Ndeye Comba ça va na def. maa ngi fi rek sant. maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yi. Mhm. Eh, di nuyu réew mi yëpp. Mhm. di ñaan uh, suñu borom def fi jàmm defal ñu ko. Mhm. ñu feebar ñu yëkkati leen te nit ñi aussi essayer respect même bu dee en normal nit dafa war a set. maanaam waruñu xaar sa ay Covid yi. ba nit ñi. seet leen nag raxasu leen seen loxoog def leen nag yooyu loolu dafa war a bokk ci suñu habitude yu ñuy def mm, mm, mm. mais nit ñi fii avant dara dañu naan dëkk bi dafa salte fekk xam nga dëkk bi moom mënul sal salteel boppam fekk nit ñi seen bopp ñoo salte kenn ko nekk di sànni mbalit nu mu la neexee na génn na jóge sa buntu kër rek bu demee buntu kër jàmbur sa yoon nekk donc nag mesures yi wax dëgg yàlla covid bi waroon na def Mm-hmm. nit ñi am yeneen comportement mu yee leen ci yeneen ak yeneen mais tu te Covid bi sax euh, impact impact positif bi mu am sur les amu ko amu ko. voilà ñu lay jaajëfal euh, Badou ndaw la médiateur ci sa disponibilité ak wuyu si bi nga xamante ni euh, wuyu si nga ñu ko mais man de xanaa yow APR nga bokk parce que bariwul may invité nit mu sol marron beige xanaa da ngay wone sa appartenance ci président Macky Sall wala qu'est-ce qui se passe. ba ma invité la tey nga def marron beige. mais man marron beige bi sax yow yaa ma ko woon. <laughs> maanaam Sénégal ni mu bëgg a doxe nii. ah d'ailleurs moo tax ñun ñu jóg. waaw parce que mënuñu xaaj dëkk bi. Mhm. ñaari xaaj. Mhm. benn xaaj bi. ñu ne Macky sàll moo fa nekk maanaam le pouvoir. Mhm. beneen xaaj bi ñu ne c'est l'opposition xaaj bi taxaw ne bi xaaj taxaw société civile activiste non du tout mhm. sa à dire que dëkk bi moom mhm. dangay waxtaan ak nit sax di ko wax lenn loo xam ni di ci attirer attention ci loo xam ni maanaam par exemple Macky Sall def na ko fii ngay attirer attention mhm. ci ne lii nii ma ko ni ko defee nii ak wala niñ ko defee nii nit ñi war nañ cee jàppe ci nii wala dara boo waxee ba pare ngeen kii nit ñi xam nga fi ñu toll nii déglu amatul wax sa xalaata am. Mhm. da ngay wax pare ñu ne la mais waa père xanaa yow Macky Sall la nga léegi. Mhm. <laughs> xam nga. parce que gis nga lu baax wax ko. exactement maanaam loolu dafa nekk sax réflexe léegi ci nit ñi ba nga xam ni man euh, au début daal na ma merloo. Mhm. parce que man dama xamul kañ la moom dëkk Macky Sall moom dëkk bi. ba moom li mu fa a def en tant que président de la république. parce que c'est quelqu'un qui a été élu pour dox benn mission li mu fiy def par exemple ñu ne kenn du ko wax alors que ñun nga xam ni comme mon mouvement yeewu leen ñun on est pour la troisième voie je dis même les voies c'est-à-dire troisième voie ça veut dire moom laay ñëw nii mhm. ça veut dire lu wax mu sax les voies rek les voies avec x maanaam yoon yi ak wax ji maanaam ñun loolu moom moo ñu tax a jóg au lieu ñu ñëw taxaw naan dafa am kenn ku ñuy faral naan dañuy farak Macky Sall wala dañ koy contre wala de opposition bi la ñuy nekk boor bi ñu taxawee boor bi ñu nekkuñu ci yooyu ñun dañu nekk pour def li nga xam ni moom mooy la troisième voie ñu aw ci moom mooy jóg ngir Sénégal jóg pour problème mu sénégalais yi maintenant bu fekkee ni gis nañ ne. Mm. ba président la république mu ngi def lii te ànd na ñun ak gis-gis bi ñu am sur le développement. Mm-hmm. xam nañ ne lii mu ngi yokk ci réew mi. Mm-hmm. dañuy essayer def noo xam ni xam nga dinañ jàpp ci loolu bu ñu gisee opposition bi taxaw fee di xalab loo xam ni dëgg la ko teg teg ko ci yoon. Mm-hmm. dañ ciy jàpp. bu fekkee ne opposition bi dafa taxaw fii tamit di wax loo xam ni seen mbiru bopp kese la pour woon nit ñi ci loo xam ne seen mbiru bopp la duñ ci antu maanaam Sénégal gi ñu diviser en deux. Mhm. ñiy far fii ñiy far fële. loolu moo tax ñun ñu solaat suñu dàll jóg pour que nit ñi. teg fa par parloo beeg jàppalante boobu. yëpp taxaw si lu jëmee réew mi kanam li jóg jëm ci réew mi. waaw waaw loolu moom dëgg la mais tey moom dama lay xoolee ku ba ngay jóg ndax marron beige bi. yaa ko sol mais attention <laughs> si boo continuer ci loolu damay dagg émission bi dem ñibbi. te man ñi fiy toog ah, di fi di. ñooñu seen affaire la wala di ànd ak Macky dama leen di bousculer du ma leen may dara. non dama la bëgg ne. Mm. loolu moom boo ko boo ko bëggee teg. kon jaaw foog mu abal la beneen chemise nga sol. non non déglu ma rek. mu wax la très sérieux honneur yi Macky Sall moomu ko. non déglu ma tuuti ma wax la. waaw man ñëw ma fi. Mm. pour wax ay waxu Macky Sall. Mm. wala may wax waxu keneen. waaw sama mbiru bopp moomu ah, fi. non déglu ma non déglu ma rek. Badou nag non non Badou man maa la invité. non yaa ma invité. mais bu ma bu ma bu ma invité. parce que profité ci invité di ma faral fu ma bokk ak fu ma bokkul. ndax mais yow yaa sol marron beige. waaw mais man luy sama yoon ci marron beige man yow sax loolu yaa ma ko man loolu seetlu ma ko woon sax man dama lijjanti marron beige. ayca ñu dem amul fayda ci man léegi Badou hmm? euh, nga nekk koo xam ne liggéey nga ci biir duwaan ay ati at déjà lu ma lay laaj mooy importance su douane ci koom-koomu réew lan mooy importance su douane. waaw euh, loolu sawar naa tontu ci. Mm-hmm. mais je crois que suñu émission boobu mës mu fi mës a am. Mm-hmm. mës nañ ci wax mais wax bi dafa yeggul woon. waaw mooy bi ñuy wax si livre bi nga génne woon. voilà héros voilà mm-hmm. xam nga douane euh, man nag bu may wax toujours damay convoquer l'histoire maanaam euh, boo demee ci dëkk yi indi indi douane Sénégal. ñuy jël ay tax ak euh, ci li fiy dugg. loolu benn système la woon boo xam ni. ca tempsam nit mënoon na koo dégg mhm. maanaam ñu ne nit ñi dañuy protéger seeni frontière kiiw ci ne la jóg ñu ne donc lu fiy dugg dafay fay lii mhm. ak fay lële ba pare douane aussi dafa am beneen liggéey bu mu daan liggéey bu amoon importance moom moo doon gis nga li ngay dégg ni ñuy wax comme tey jii mhm. naan euh, soble bi nañu tere importation bi bàyyi euh, kii soble bi bi nekk fii ñu jaay ko affaire yooyu hmm. douane protection yi da ko doon def mais il se trouve que protection yooyu yëpp dafa màbb bi gars yi indee euh, économie de marché bi nga xam ni ñu ne léegi ku mu neex mën nga indi lu la neex noo ko indee hmm. donc boo gisee sax fois gouvernement bi di jël ay mesures yi di hmm. tere kii dugg fekk yooyu tegu ko ci yoon sur le plan du commerce international nekkul ci yoon mais daf koy def parce que il faut mu def ko protéger Euh, la production nationale. Mm. donc douane yëpp dafa bokk ci liggéeyam. mais yooyu nag dafa fekk yu mu màbb depuis yooyu ay contingentement. Mm. ay prohibition affaire yenn kii yi nga xam dañ daan tere. ne mm. fi dugg. Mm-hmm. parce que ñu ngi koy am fii. Mm-hmm. puisque ñu ngi koy am fii jarul ñu koy jëgaani fenn di ko indi. nañu indi li nga xam ni dañ ko soxla wala loo xam ni. Mm-hmm. produiruñ ko wala dara. loolu dafa bokk ci liggéeyu douane en général waaw mais le plus important. li nga xam ni mooy mutation bi nga xam ni moo waroon a am tey jii ni ngay xoole ndax Sénégal mu ngi dox wala doxul li lay won ni économie Sénégal économie bu extraverti la tournée mhm. euh, vers l'extérieur ba nga waaw ba nga xam ni sénégalais bi bon bu ñu ñëwee gouvernement bi taxaw mu ne euh, douane na fexe ba dugal ren cinq cent milliards douanier yi xam nga ñoom commerce suñu mhm. dañu toog di xaar gars dem jëggaani wuti ji ñëw ñu taxé ñëw ñu taxé mais da ngay xool ne bu gouvernement bi ne na duwaan indi ren fexe ba indi parce que ay objectif la yu ñuy jox administration des douanes mhm. léegi bu ñu nee na douane indi cinq cent milliards ren mhm. xamal ni que pour douane indi cinq cent milliards sénégalais yi génn nañ presque mille deux cent milliards ci biti ci biti loolu nag yoonu douane yi nekk du fotu douane xam nga mais fautu économie bi nga xam ne état bi daf ko teg la parce que un pays bu normal boo xam ne mu ngi développé seen douane mu ngi reposer ci exportation bi buy am ay taxes yoo xam ne douane da koy jël mu gën a bari ci exportation bi la koy jëlee parce que imaginez que ni bu fekkee ni euh, euh, douanier dañ génne ñu ne cinq cent milliards la douane indi tey cinq cent milliards yooyu da ngay xool ne mm-hmm. pour exemple bu fekkoon fekkee nit ki dafa war a ñëw fay douane cinq euh, euh, un million xamal ni pour mu fay duwaan million jël na trois million yoo xam ni wala quatre wala cinq yoo xam ni dem na par exemple Chine jënd na fa marchandise fanaan na fa ci hôtel fay na trans ñooñu di ko yenul bagage bi fay na kii fay na ñi yëkkati conteneur bi fay na gaal gi koy indi ba Sénégal xam nga dépensé na xaalis boobu yëpp. Mm-hmm. bu yegsee ba Sénégal. Mm-hmm. bu affaire bi ne cëpp port léegi entreprise yi nekk port kenn ku nekk di jël di laaj di laaj li muy laaj marchandise ba mu door a ñëw douane bu ñëwee duwaan duwaan ne yow mii day génnoon nga dem nga jënd jël lii war nga cee fay un million. imagine pour am un million boobu. Mm-hmm. naka la demee cest à génne nañ xaalis bu bari. pour bu dellu ci biti. pour jënd marchandise. pour fay transporteur bu pour pour indi ko. pour mm. douane mën a génne un million. est-ce que loolu douane bu am bu jëlee un million boobu jox ko état bi est-ce que. loolu ndam la. du ndam est-ce que état bi gañe na dara état bi gañewul dara. parce que mm. xaalis génn na te wóorul mu dellu si. Mm-hmm. te bu bu douane jëlee un million boobu. ñu suppose ñu fayaate ko fonctionnaire bi. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. commerçant bi buy jëndaat pour euh, waa ji nga xam ni. Eh, yor na as tuut léegi bëggoon ay dàll wala yooyu commerçant bu soxlaatee dàll delluwaat Chine donc dafay jëlaat xaalis bi nga xam ne amaat na fi. Mm. di génnewaat donc dafay nekk loo xam ni douane ndamam pour un état. je précise nag. Mm. loolu du ne douanier ñoo ko def état moom. moo moom moo ko def. Mm. c'est une mauvaise politique. waaw c'est-à-dire que le développement boobu fekkee da nga bëgg xool développement. un pays ni muy développé woo da ngay xool balance commerciale am. parce que balance commerciale boobu comme Sénégal moo commandé douane. Mhm. bu la douane nee du comme damay répété di ko waxaat bu la douane nee dugal naa cinq cent milliards xamal ni Sénégal génne na cinq cent mhm. milliards. ci mbedd mi ci mbedd mhm. donc une bonne douane un une bonne économie bu doon dox moom mooy que tey jii état bi du jël douane xam nga. bëgg ko defloo ko pour di ko jox ay mission pour que nit ñi ki ci mais dafa am économie boo xam ni douane ci boppam bu ñu demee ba ne douane day importation bi. Mhm. importation bi. Mhm. presque amu ci sax un milliard. xamal ni kon économie Sénégal mu ngi dox en ce moment da ngay dégg ñu ne Sénégal day génne na ci marché international bi xam nga. Mhm. ay milliards yoo xam noonu la toll. en ce moment douane day tourner au lieu mu jël ay recettes à à à à muy jël ay recettes à l'exportation ah, voilà yow loolu pour yow euh, duwaan bu doon marché carrément côté boobu lay lay lay kii. non douane mu ngi marché côté boobu lañ mën a wax ni vraiment euh, économie réewu Sénégal mu ngi dox. waaw parce que ci côté boobu rek la. waaw kooku c'est économique mm. implacable. cest diir dire mm. que ni tant que. Mm. ñu ngi naan. maanaam yow lu ñuy génne si biti. wala li ñuy dugal lan nga yaakaar ne moom lañ gën war a gën a développer. non déglu bu baax. li ma lay expliquer. bu gouvernement bi taxawee ne douane indil ma cinq cent milliards na gouvernement bi xam ni pour douane dugal cinq cent milliards il faut Sénégal génne mille cinq cent milliards jaay ko feneen pour mm. douane am cinq cent milliards maintenant bu fekkee ni gouvernement bi dafa xalaat ne Sénégal dafa war a développer moom mooy ko bu ñu toogee ba nga xam ni douane ah buñ ko laajee un ci importation bi sax du ko mën a joxe boobu temps fekk na sénégalais yi li ñuy bay li ñuy lekk ñu ngi koy bay. Mm-hmm. li ñuy sol ñu ngi koy defaral seen bopp. Mhm. Euh, carburant bi ñuy jëlee feneen maanaam poste de dépense yi nga xam ni yëpp moom moo la consommateur bi sénégalais bi di kii mhm. au moins à quatre vingt pour cent. Mhm. wala au moins sax à cinquante pour cent. mu ngi koy defaree ñu ngi koy defaree fii sénégalais bi di ko consommer fii. moo tax du dem di jëgaani leneen loo xam ne ba douane di ko ci teg ay taxes. ay taxes voilà. voilà maanaam yow tant que euh, pour mu leer euh, état wu Sénégal par exemple mi ngi wax douane indil ma cinq cent milliards mu jox ko cinq cent milliards veut dire que réew mi doxul économie bi doxul mais bis bu ko ko laajoon te joxu ko ça veut dire que mbir yi mi ngi dox ci biir réew mi normalement Exactement. que bu nit ñi bu nit li ñuy consommer mhm. duñ ko jëgaani ji feneen fii douane dootul dox lañ koy wut en tout cas li ci gën a bari commerce international nag moom kenn mënu koo bañ mhm. parce que da soxla lii soxla ko fële mais li nga xam ne moom mooy problème mu développement euh, généralement Sénégal ak pays africains yi mooy li ñuy consommer à peu presque à quatre-vingt-dix pour nit ñi sax consommer étranger moo leen gënal. Mhm. que local que local. kaay mhm. ma jox la benn exemple xam nga mhm. sénégalais bi. man par exemple du ma jënd suukaru ay buy jóge feneen. ko depuis très longtemps ceebu mbay bi man bi ma koy jënd depuis quatre vingt laa koy jënd di ko dugal suma kër boo wootee suma kër fi dañ lay wax ni fii riz parfumé du fi duggu riz beneen fii riz de la vallée bi moo fiy dugg mm. xam nga mm. diwlinu segal bi je fais tout pour di ko am dama ciy jënd ay deux cent litres teg ko pour di ko consommer toute ne mm-hmm. tey jii sucre CSS bi nga xam ni CSS mm. boo ko xoolee c'est une entreprise nationale boo xam ni une ville entière ñoo fay liggéey mm-hmm. mu nekk mbay mm-hmm. ah nekk ressource boo xam ne suñu ressource nationale ay entreprise ay centaines d' entreprise mhm. di di liggéey ak CSS ay sénégal yi di ci dund man boo ñëwee tey mhm. loolu moom mooy problème mu de de nationalisme économique mhm. maanaam tey man boo ñëwee tey indil ma sucre étranger bi jar kilo bi cinq cent CSS di ma jaay kilo bi mille francs normalement dama war a jënd bu sees bu jënd ko kilo mille francs xam nga lu tax même bu gënee cher même bu gënee cher parce que damay protéger emploi yi fi am damay protéger une industrie boo xam ni ay milliards lay générer au au Sénégal te lépp Sénégal lañ ko defee est-ce que tu vois. Exactement. mais da ngay gis ay sénégalais yoo xam ni ay c'est des commerçants qui te disent oui. sucre France bi laa bëgg. oui na seen na na gouvernement bu wàcce barrière ni te mm-hmm. ñoom ay mm-hmm. sénégalais lañu. CSS mm-hmm. tubaab moom moo ko def teg ko fi ba tey jii muy dox des milliers de personnes di fa liggéey une ville entière des entreprises di fa jàpp ñoom ñu préféré. ñu màbb CSS ñoom ñu dem jënd ji suukar boo xam ni mm. buñ ko jënd jee xëy na dafay gën a yomb parce que subvention nañ ko mm. tey ña muy enrichir dootul kii CSS bu daanu woon tey ñaata nit ñooy nekk ci mbedd mi au chômage impact yan lay am ak yooyu yooyu la gouvernement yi war a xool di ko waxtaaneek ak ñi nga xam ne dañuy wax loolu di ko waxtaanee aussi ak sénégalais yi la la préférence mm. nationale xam nga parce que yëpp ñun dañ koy wax dans mon mouvement mm-hmm. cest à que yooyu yëpp c'est du civisme civisme nag du ni ngay doxee ci mbedd mi ngay kii noonu civisme dafay appliqué wu. ci ci lu bari dafa large ci côté yëpp. Mhm. ci côté sa consommation ci côté kii man je fais le maximum pour nga xam li may wax dama koy gëm pour être nekk ci dans ma consommation de tous les jours ci loo xam ni damay xalaat ni lii yëfu Sénégal la ma dugal ci suma loxo. Mhm. par exemple li may jënd toog di ko jënde benn pomme wala benn orange damay préférer jëndee ko un fruit local. man foo ma gis suma oto ni boo fa dama yaa fa fekk ay fruits locaux mm. xam nga mm. li may dem di jënd ji benn orange wala benn kiwi xëy na ma kii je préfère jënd orange local bi c'est c'est man maa ko choisir sama bopp di ko def boo ma tegalee comme ni ma la wax fii ceeb boo xam ni Inde la jóge damay soxla dama du ma ko soxla riz vallée bi laay laay jënd mm. donc yaa ngi koy dund carrément wow. est-ce que mën nañu wax ni kon euh, douane nekk na euh, maanaam tey boo ñu doon wax duwaan carrément euh, importance bu mu am wala euh, position bu mu am euh, ci économie réewu Sénégal est-ce que mën nañu wax ni euh, dafay occuper benn position primordiale maanaam douane lan lay peser ci économie bu réewu Sénégal waaw loolu beneen wax la. waaw juste une minute ñu jàll si yeneen question voilà ma ne loolu beneen wax la. sa à dire fi mu toll nii li ko état bi di liggéeyloo douanier ñu ngi koy def. dañ koy def ñu ngi def seen liggéey à fond mm-hmm. ba lu ñu leen laaj dañ koy indi sax ba dolli ci leneen bu ñu leen defloo woon leneen aussi dañ koy def parce que c'est des hommes compétents une administration de pointe boo xam ni wax dëgg fa yàlla man jóge naa fa bu yàgg a yàgg mais xam naa ni c'est une administration bu pointue où nit ñi dañuy liggéey sax ba fay perte seen bakkan nag yooyu yëpp ba mm-hmm. pare dañu ay ay ay nit ñu xarañ ña nga fa xam nga mm-hmm. mais état mission bi ñu leen jox rek lañ mën a def te li may wax ni concerné wul douane spécifiquement état la conserné pour mu xool niveau de développement nan ci douane def maanaam douane état bi bu ko xoolee. Mm-hmm. xool di ko laaj douane cinq cent milliards. Mm-hmm. déwén mu ne nañ laaj douane mille milliards. Mm-hmm. xam nga na état bi xam ni kon mu ngi arrière loolu il faut ñu attirer ci attention wu dirigeant yi. dirigeant yi léegi euh, lan mooy problème mu douanier yi. douane yi yan jafe-jafe la ñuy faral di jànkonteel si seen liggéey comme yow par exemple bi ngay liggéey yan jafe-jafe nga doon faral di jànkonteel pas spécialement liggéey boo gis waaw dafa am ay contraintes xam nga xam nga douane nag corps bu metti la mhm. c'est boo xam dafa metti xëy na bu nit ñi bu ñu gis douane yi dem nit ñi xamuñu douane yi globalement dama koy wax mhm. gis nga bi bi douane xaw ma année bi 92 la xaw ma 93 ñu ne dañuy indi gendarme yi douane man boobu temps j'étais à l'époque à la direction des enquêtes coow li bari gars yi di tëdd suuf man sama opinion moo doon dama ni gars yi mais man su su directeur enquête bi fa new alpha man ko mais bàyyi leen leen ñu ñëw bu ñu ñëwee ñoom ci la ñuy xam ñun ñooy ñan parce que douane yi dañuy romb nit ñi rek c'est vrai. Mm-hmm. dafa am loo xam ne moom la gis. dañuy parce que douane bi ñuy wax indil budget bi cinq cent milliards xam bu bu état bi ne douane indil cinq cent milliards mhm. dañ koy tas dañ koy tas dañ koy tas kenn ku nekk li mu war a indi dañ koy tas ci poste yi tas ko ci bureau yi kenn ñu mhm. jox lay objectif mhm. gars yi objectif yooyu foog ñu atteindre dañ dañ koy atteindre dañ dañ koy xeex ba atteindre ko te douane yi li yu bari xamul ci ñoom par exemple xam nga tey euh, douane yi kenn du leen xoole comme ay soldats yoo xam ni comme ni ñu xoolee militaire bi. Mm. pourtant douanier bi comme le brigadier douanier moom c'est quelqu'un boo xam ni mu ngi ci guerre tous les jours douanier yi fi ñuy dem tuuti nit a fay dem. Mm-hmm. li ñuy def pour jàpp ñi ko ñeme tuuti lañu. et je l'ai dit j'ai eu raison collègue daf ma koy wax toujours ba du Ndao tu as eu une vision si gendarme yi ñëwee foofu quand ils sont ba liggéey ak douanier yi mm-hmm. dañu tiit parce que àll yi douanier yi di dem condition yi ñuy dundee nga xam da nga toog ñetti fan juróomi fan. Mm-hmm. doo lekk lu baax doo ko tëdd fu baax. àll ngay ñëw fàq tëdd. Mm-hmm. di daxanteeg ñoo xam ni kii di yow jaan xamatuloo ko. dafa ma dafa may jaaxal sax bu ma toogee tey may defaat rétro suma suma vie. Mm-hmm. dafa damay damay xam damay ree damay reetaan sax dama naan mais lii lu ko jaroon. maanaam donc loolu yombul daal nekk douanier maintenant mhm. il se trouve que douane ñaari corps la normalement léegi sax dafa xaw a jaxasoo dafa am corps actif bi moom mooy soldats yi moom mooy les brigades mhm. moom mooy ñu ngay gis ci frontières yi ak yooyu waaw il faut qu'on il faut aussi que ñu xam ni que douane aussi dakaar euh, Dakar comme ni euh, douane ñuy frontière lañ ko considéré donc da fi gis ay douaniers yoo xam dañ nekk comme àll bi comme par exemple boo nekkee ay yenn brigades yi nekk biir Dakar nii mhm. gis nga comme ni ngay bët bi nga xam ni moom la nit ki di xool di gis ay xale yu jigéen yu romb fi ñu soloog douane bi moom fekk na fa mel ni mu ngi ci biir guerre. Mhm. maanaam ma ngay wut oto bu normalul ma ngay dàqante ma ngay lii loolu douane yi dañ koy dund. <laughs> te nit ñi duñ ko xam duñ si sax prêter attention sax prêter attention. man par exemple dama lay wax ne man nekk naa dans une brigade boo xam ni mënoon naa def une semaine du ma dugg suma biir kër te damay romb suma kër. Mhm. dama koy romb nii. di woote di wax ni bon ñu ngi ñëw ci kanam ñu ngi ñëw ci kii ak. te doo mën a ñëw te doo mën a ñëw. donc liggéey bu metti la. Mm-hmm. mais d'un autre côté aussi. Euh, douane yi. liggéey bu noble la quand tamit liggéey bu noble la ba pare aussi dafa bari technicité xam nga. Mm-hmm. douane yi dafa bari ay intellectuels des bien formés dafa bari comme yi nekk dans les bureaux parce que pour nga def une bonne taxation il faut nga xarañ ci li ngay def il faut jàpp aussi il faut nga xarañ. Mm-hmm. donc c'est un un un un grand corps d'État boo xam ni wax dëgg yàlla bon man def naa fa 31 ans dama leen respecté. macha allah waaw. fanweeri at ak benn ci biir douane mais euh, nga def fanweeri at ci ak benn ci biir douane euh, tey jii booy dox ci mbedd mi mu am ay préjugés yoo xamante ni souvent sénégalais yi dañ koy am si euh, douane yi souvent ñi riba la ñuy dundee dañuy nangu marchandise su jàmbur jël ko yóbbu ko seen kër in ainsi de suite loolu lan ngay wax si préjugés yooyu nga xam ni souvent. Euh, nit yi wala ñiy tukki di voyage yi di jëndi ay marchandises à l'extérieur souvent dañ koy am si les douaniers lan nga leen di toon douanier yi riba la ñuy dundee ah douanier moom alalu riba dangay gis sax douanier bu yor otoom bu tooy di dawal ñu ne ah da koo nangu si benn kii riba la quoi waaw nekkul nekkul alal bu lew xam nga looloo siy tontu mhm. nekk mhm. on dañ nekk ci dëkk boo xam ni mhm. il faut nit ñi accepter benn affaire. Mm. moom mooy que ni gis nga tey. Mm-hmm. li la nit ñi di xaare tey ji man douanier laa woon. Mm-hmm. <laughs> mais man douanier laa woon bu amul woon xaalis. Mm-hmm. wala da ngay nëbbatu rek Badou. <laughs> ah xam nga lu tax. c'est-à-dire. Hmm, mun nga am xaalis ne aw ma xaalis de. kenn ah ku lu koy prouver. yomb na de. waaw non non c'est facile. <laughs> waaw c'est dañuy dañuy waxtaan. Mhm. damay poser des questions. Mhm. man ñi ma xam ñëpp. Hmm. xam nañ ni man Badou ndaw amul euh, lenn loo xam ni dama ciy wax wala dama koy jëf lu saafaanoog li ma gëm dama lay expliquer ne la. Mhm. xam nga douanier yi ñi douanier yi amul xaalis ñoo ëpp téeméeri yoon douanier yi am xaalis maintenant. Mhm. xam nga fii Sénégal la maanaam dëkk la boo xam ni daf fi am loo xam ni il faut nit ñi d'accord ne nit ñëpp ci d'accord moo tax mu am tey jii. man mi nga xam ni douanier laa woon moo dama jox la sama exemple parce que mm. xaw ma keneen am na ñeneen ñu ma xam mais mm. xëy na peut-être ñoom amuñu chance ñu toog fi ci rajo bi di wax dama ni la man mi nga xam ni douanier laa woon nga xam ni l'argent non seulement ne mm. m'intéressait pas mm-hmm. xam nga gisumoo ni mën naa enrichir en douane may dundee li nga xam ni douane moo ko doon jox li ma am lépp douane li ma am tey yëpp douane laa ko amee te ci njub laa ko amee donc douanier bi mën na liggéey ba retraité. gagner dignement sa vie. réussir sa sa vie. te du lekk riba. du tout ñu am pagaille de douanier ñoo ñoo ñoo nekk ñoo xam ni xamuñu riba lijjanti wuñ ko di dund ci. mais am na koy dund. nga yow nga teg ci sa bët. si fanweeri at yi nga am ci biir. douane gis nga ko. moom laa lay wax nii. Mm-hmm. ne la mm-hmm. ñi nga xam ni douane dañ fa riche. Mm-hmm. ñooñu. tuuti la ñu par rapport ak sûrement ni ko nit ñi di waxe douane dafa am xaalis waaye kii ñu ngay gis ay kii ah, moom dañu am xaalis dañu am xaalis ainsi de suite ak yooyu dafa am loolu benn vitrine la bu ay nit présenté mhm. ñooñu noonu ñooñu noonu ñi fa am xaalis ñi fa am xaalis douane ñooñu noonu yore ay oto yu rafet di ko dawal ak di ko li ainsi de suite xëy na sa xaalis bi ñu leen di waxal amuñu ko mais ñoom ñoo présenté seen bopp noonu parce que Sénégal moom mooy doxe noonu. Mm-hmm. man tey boo demoon sama mbokk yi wala nga dem ci suma xarit yi comme benn waaye mës na ma <laughs> ma naan mm-hmm. benn journée ah, mu mais ba doon ko ankay mun na ma non. yow yaa ngi benn oto bu xant fii. Mm-hmm. Ah, sa gars yi di baatre yow fu ñu la fekk. yaa xaw ma lan affaire yi affaire may ree. man ko ah pourtant douanier laa. douane laa wàccee nii man ma non yow koy doo douanier. wala boo dee douane yi aussi. waaw mooy loolu parce que am na image bu ñu jox. am ñuy jox douane yi. Mhm. léegi na il se trouve que ay génération day am xam nga bu njëkk. Mhm. Euh, boo ñëwee douane comme ñun de mon temps les chefs yi nga fay fekk ay paa la ñu woon yoo xam ni ils te considéraient plus ils avaient une gestion de père de famille. Mhm. bon te ñun aussi am na loo xam ni xalaatuñ ko woon def mais tey jii tey jii. boo toogee nga gis un jeune douanier yore oto bu rafet yore pukki c'est parce que dafa fekkee ay mécanismes yoo xam ne ñun fekkee wuñ ko woon mhm. par exemple le commerce le douanier bi nga xam ni tey tey tey romb na la ak oto bu rafet rafet rafet il faut pas penser que dafa génne xobet xobet fay ko wala dara mhm. c'est parce que au moment bi muy nekk douanier au tey jii fi ñu taxaw di wax nii ay nit a ngi importer ay oto mhm. gis nga ci mbedd yi ñëpp ay oto la yi ñooy seen premier contact il faut ñu xamante donc pour mu ne ah waaw mais sawaay doo ma abal lebal benn oto wala lii ma fayee ko nii wala ma fayee ko na leeg yooyu maanaam daf koy yomb daf koy yomb mën na ko may sa oto may bi wóoruma mais xam naa ni loolu c'est très possible man dama lay expliquer rek maanaam li ngay du ne li gis rek moom mooy dëgg am na nag ñoo xam ni xëy na le paraître wala bon loolu jaral na leen lu wane ni dama yor te yorul sax réellement euh, réellement moo ci ëpp wax je ne sais même pas moo ci ëpp mais loolu am na ci mais nag hmm. comme dans tous les corps que muy corps yëpp Sénégal dañoo bëgg corruption. Mhm. Sénégal ci boppam. la corruption dans la douane. partout Sénégal ci boppam moo bëgg xam nga Sénégal nu muy xalaate mhm. ah? mhm. pour moom lépp dañ koy lijjanti. au lieu que ma dédouané naa am lu ma joxe. ku dul dédouané yëpp a ci yem. c'est-à-dire que la boo xam ni. tey jii boo tegoon benn douanier fii. mu ne naa dédouané normalement balaa ñetti fan nit ñi danañ ko booleeg seen sëriñ. Mm-hmm. sëriñ ba woo président la république. Mm-hmm. kooku woo ministre ba ñu ne am na kat. Sabine euh, nu mu tuddati ndey ku mu móoro boo xam ni. Mm-hmm. ma nga ca poor ba. loo ne lu ñu ne nii mu nekk du dimbali kenn. xam nga lu ñuy njëkk a def. jëlee la fa jëlee la fa. donc c'est ce indi keneen koo xam ne dina d'accord seen condition c'est ce pays qui fonctionne comme ça. comme ça et c'est dans c'est dans tous les secteurs. waaw. c'est un pays qui fonctionne comme sa je je le dis dans mon livre ma bind la la dernière fois. temps booy wala. Euh, héros sans médaille sans médaille. Mhm. par exemple ay expérience yow yoo xam ne nit ñi dañuy nekk ci benn système boo xam ni teguñu ko ci yoon. kenn mhm. tegu ko ci. Mhm. nga ñëw bëgg leen teg ci yoon mais duñ ko def. comme maa lay ngi jox exemple boo xam ne kii moo boo xam ne dafa may reetaanloo benn document boo xam ne ñu dañ daan ñëw di ko jël ci benn ci brigade bi. boobu temps maa ngi si àll bi. bu ñu ñëwee war ñu fay dara parce que douane moom moo leen wax ne leen boo leen di commerce ci zone bi frontière indi leen boo leen defaree ay cuub ay affaires yooyu produit du cru lañ koy wax ñëwal douane wax la ni yow mi kat am nga cinquante kii yu cuub. Mm. mu tudd passavant ñu bindal la ko. comme ça nga mën a jaay boo tasee ak yi ci biir dëkk bi duñu la mën a kii maanaam jaawale ak cuub bi nga xam ni Mali lay jóge mm. mais loolu douane moo ko demandé waroo fay dara mais gars yi dañuy ñëw di fay. di fay man ñu ñëw fekk ma fa. man leen ki waru leen fay dara. Mhm. mais ba defar leen kayit yëpp jox leen wóoluwuñu ma. parce que yow fayaloo woo leen dara te ñeneen ñu ngi leen di fayaloo. <laughs> ñu te li nga def moo normal moo normal ñu dem seeti douanier yi seen tëddoon seen kër. ne waaw ne leen chef bi nekk fële bon wax nañ ko dañuy fay mu bañ. waaw def ko nga dem problème. waaw parce que dañuy ragal sax am problème. ñu ne leen fayoo leen. <laughs> alors que loolu moo moo normal maanaam dañu dund corruption ba mu ba mu nekk lu. Euh, doy waar corruption nag. Mhm. corruption ñaara ko séq. ka koy def ak. waaw surtout c'est sénégalais yi nag c'est des ñaaw c'est des corrupteurs et et les corrompus te ñaar ñëpp lay daan te nga sénégalais bi mhm. ah tendance la am maanaam bu fekkee ni yaa ngi koy defar liggéeyam mhm. bu normal sax dana génne dara jox la nga ne ko jëluma jëlal chef maa la ko may ci xol bu sedd nga ne ko góor gi jëluma wala soxna si jëluma mu ne noonoo dëdd jëlal maa la ko may du dara waaw xam nga c'est de la corruption te loolu looyu la sénégalais yi tàmm mhm. war a fay mille francs ci frontière bi. xam nga mm-hmm. mm-hmm. douane bi toog ñu war a ñëw fay mille francs ne la chef doo ma dimbali ma fay téeméer nga ne ko sëñ bi tey ngaa fay mille francs bii. Mm. lii bu dem sa yoon kenn du la sonal fenn. nga ne yow nga ne téeméer laay fay ba pare nga may ma lii ainsi de suite. topp yoon bi nag mhm. xam nga fu la douanier arrêté nga nekk di ñaan boo demee seen kër <laughs> douanier ba de lekk na sama téeméer kii lekk na te yow yaa yi ñuy lekk sa téeméer yi ñuy lekkee sa téeméer à chaque fois mi ngi noonu euh, juste quelques secondes médiateur bi fan la jóge exactement Badou Ndao la médiateur médiateur de la République wala médiateur de la douane si ban domaine mais man douane génn naa fa depuis 2013. waaw musuma ba fa génne ba tey ji musuma fa teg sama tànk bi donc mun mu nekk médiateur de la douane. waaw kon médiateur si lan waaw mais déglu ma da nga ma wax kay mais yow yaa bëgg wax ba pare orienté sama nag su ma la laajee day tontu. mais bu may tontu nag nga bëgg ma tontu li nga bëgg li ngay je ne danga ma bàyyi ma tontu la. mais doo jël wutal ma tontu. Hmm. naan ma médiateur de la douane nan laa nekk médiateur man dootuma <laughs> douanier depuis 2003 ma fàtte naan sax mos naa liggéey bu mu jógee ah, waaw ma loolu ma tontu la loolu ayca <laughs> Badou Ndao médiateur bi fu mu jógee exactement waaw moi je mhm. dama dama jàng de la médiation mhm. ba pare di ko def dans le cadre d'une association xam nga acte action civique yeewu leen dafa bari ay département mhm. j'avais commencé par faire de la médiation familiale donc di régler des problèmes familiaux parce que j'en ai beaucoup eu du fait de mon travail j'ai énormément de problèmes familiaux ma xam ni problème yu bari c'est des malentendus mm -hmm. et nit mën na ko régler ci loolu laa commencé di ko def euh, di ko étendre gis ne c'est un besoin ba gis ne yaa une école sax bu ñu fi def euh, di former ay ay ay ay médiateurs mm-hmm. d'ailleurs ñoom sax seen président bi seen kii bi il m'a contacté une fois sama jeune la il est il est dans mon groupe Cheikh Mar ñu ciy waxtaan xam nga donc foofu laa jëlee euh, Ndaw Badou le médiateur. le médiateur donc je m'occupe de ça ba mujj ko def sax une entreprise. Mm. boo xam ni on assiste les gens euh, sur le plan euh, juridique et sur le plan ju judiciaire on assiste des familles on fait énorme parce que médiation dafa spectre bu large la mm. on intervient sur beaucoup de choses xam nga parce que le simple fait euh, de de on fait même du recouvrement de créances ak yooyu yëpp noonu. Mhm. dans le cadre de la médiation. Mhm. mais ce qu'il faut savoir moom mooy que médiation c'est une procédure comme une procédure judiciaire. Mhm. maanaam euh, li ñuy kii rek li ñuy éviter. moom mooy par exemple dem tribunal ay condamnation ay affaires yooyu. mais dañuy fexe ba nga xam ni dañuy indi une conciliation et au nom d'un intérêt majeur ñu def le tribunal mais kenn ku nekk di nga xam la yow. lan ban daan nga doon am boo demoon tribunal kenn ku ne di nga xam yow ban perte de temps nga doon am boo yóbboo kii tribunal et que trouver leen une solution par rapport à à ce truc. à ce truc voilà. maintenant vous êtes plus célèbre que le médiateur de la République Alioune Badara ba Badou Ndao le médiateur. ah je je je. ah médiateur je suis célèbre où <laughs> léegi Badou Ndao nga am ab euh, mouvement ñu tuddee ko acte euh, action euh, civique exactement yeewu leen mm-hmm. waaw réveillez-vous mm-hmm. pourquoi lan ban touche originale la du ndaw bëgg a apporter par rapport ak sa mouvement mais ñu ñu ngi koy apporter depuis maa la koy wax dès le début c'est la troisième fois mais auditeurs yi déglu bëgg a xam-xam waaw d'accord je reviens voilà ma ne waaw moo tax ma indil la ne la c'est mm-hmm. la troisième fois cest dire la voie bi nga xam ni nous on pas dans. mooy li nga waxoon ci début bi. ci début bi mm-hmm. nekkuñu par exemple dans la partisanerie parce que Sénégal tey loolu moom moo fi am. Mm-hmm. ñi fiy politique ñëpp ils sont derrière quelqu'un mm-hmm. bon ñun ñu xool xam ni écoute euh, politiciens yi. ils mmh. mën nañ constituer day dañ ko constituer sax une menace pour ce pour Sénégal parce que ki nga xam ne mu ngi ci nguur gi. moom. lu muy lijjanti nu muy toogee ci nguur gi ñi nga xam ni ñu ngi ci opposition bi ñu lu ñuy lijjanti ñoom nu ñuy fii jëlee kii et tous les moyens son bon est-ce que tu vois. Mm-hmm. et mais pendant ce temps ñun sénégalais yi nga xam dañ fay nekk. Mm-hmm. te politiciens yi. ëpp ñu xel ëpp ñu xalaat gën ñu gënu ñoo dëkk ci dëkk bi. Mm-hmm. ëpp ñu fit ëpp ñu xam-xam ëpp ñu dara. Mm-hmm. au contraire. Mm-hmm. parce que tey fi ñu toll nii di wax. les plus nuls. nga xam ni mu ñu réussir fenn ñooy daw ci politique bi ci ci base beeg partout parce que quoi y un président de la de la république bu fi nekk boo xam ni moom il a. tellement de pouvoir. Mhm. que moom mën na nommer ku ko neex ak yooyu donc fi mu toll nii Sénégal amatul compétition ku ñu ne mooy fi am ku fi politique rek. Mhm. yaa ngi maanaam yow doo commerçant boo xam ne da ngaa yor sa alal dem dugg ci politique doo waajoo xam ni da ngaa jàng ba mu ne ar ba créer sa entreprise doo fa dem di dugg ci politique bi non ñiy dugg ci politique bi moom mooy ñoo xam ni dañoo bëgg dugg ci politique bi farak par par exemple ci benn côté bi ah maa ngi ñëw ci benn côté bi farak président de la république pour mën a dund ci loolu am ci poste yi nga xam ne boo ko amee. Mhm. di nga mën a def loolu neex moo tax ngay gis au moment au vingt et unième siècle dans un pays comme le Sénégal où xam-xam bi yëpp am nañ fi yaa lépp a ngi fi. ngay gis ay maire yoo xam ni dara xamuñu ko. Mhm. xam nga. ay naakal blindé yoo xam ni. Mhm. xamuñ sax lan mooy développement alors que les maires yi devraient progresser nekk ay outils de développement parce que boo demee dans des pays organisés où nit ñi s'occupe de développement une mairie c'est une entité économique donc waruñ jël benn sàmba sugum gay boo xam ni dara xamu ko. parce que man président de la République laa àndal ñu fexe ba mu nekk maire nekk foofu lu muy def ay jaay ay suuf fii bu gisee sax un acteur économique. Mhm. bu gisee sax un acteur économique bu nekk dans la zone. mu xool nu mu koy caxabal mu koy kii ba jëlee ko foofu. wala dara xeex ko wala wala quoi que mhm. xam nga donc noonu la demee ci côté boobu. Mhm. bon beneen côté bi ñu ne su l'opposition ñu ne acca léegi lu ñuy lijjanti na fi waa jiy jóge ki nekk au pouvoir. kese na fi jógee rek. tous les moyens sont bons. sont bons. Mm. dañuy xaar ba ki nekk au pouvoir. war a ñëw teg benn projet boo xam ñoom xam leeral ni projet bi baaxul waa ji politique tamit moo tax mu def ko fi teg projet bi ñu ne cent milliards la wala mille milliards. au lieu ñu lijjanti waa bañ bañ a def projet boobu parce que mille milliards wala cent milliards yooyu yàqum xaalisu Sénégal Sénégal yëpp na la nar a yàqal te luy yàq kenn waru koo seetaan. dañuy bàyyi ba waaj jaay cent milliards ba wala mille milliards ba ñu door a jóg gis ngeen waaj yi sàcc na suñu xaalis mm-hmm. mille milliards la def fii lekk na ko fii nii lan moo ko dal moo leen tere woon a jóg alerter la population yee leen à temps ñooñu tamit jóg ci parce que c'est le rôle normalement d'une opposition bu responsable je le dis toujours autant mm a un pouvoir politique et politicien d'un côté autant on a une opposition qui est sans vision qui est plus politique si autant politicienne que pouvoir bi mu amal affaire et au moment en ce ana les sénégalais ils sont pris entre les deux feux ñun nag ñu ne ñun loolu waaw ñu ne ñun loolu dunduñu ko na fi dañ danañ ko essayer dindi nuñ ko mëne yow yow yow Badou bu la euh, Macky woon pour ngeen liggéey loo koy wax c'est vrai maa ngi lay wax marron beige nga bëgg ma dóor si si bi non ma <laughs> mais su la mag yi parce que bu fekkee da ngeen a jóg yéen euh, waa mouvement mm-hmm. euh, acte action civique mm-hmm. pour sopp soppi maanaam yow lu doxal réew mi rek moom moo leen soxal waaw lu doxal réew mi moom moo lay soxal léegi Macky dégg la fii mm-hmm. nga par exemple nga def si rajo mu ne waa vraiment du ndaw war na mën a ñëw mm-hmm. apporter sa sa touche originale ah avec son mouvement et tout yow di nga wuyu ji Macky Sall mu jox la post wala mu jox la loo xamante ni di nga mën a liggéeyal askan wi apporter sa touche originale loolu jarul sax mu may woowu ma te maa ko koy defal woowu la te yaa ngi koy defal nga loolu waaw parce que aussi mais bu la woowoon ci lay gën a nekk non déglu ma rek euh, ay ndey ko ba ma posé question da nga may déglu. ma tontu la. xam nga bu ma fekkee ma lay tontu nga may dagg bëgg ma yóbbu ci je ne man xaw ma euh, lan moo la tax a jox da nga ma posé question dama lay tontu. ay ca Badou développé da nga ni ma bu la Macky Sall woowoon ndax di nga ko wuy ji. Mhm. ma ni la wax woowu ma. Mhm. te man maa ngi jël sama alal sama xam-xam sama mën-mën. di ko def ci réew mi di ko bindal xoolal moom xaw ma fa mu nekk de. Mhm. mais bés bu nekk. ak je dis pas bés amul benn secteur boo xam ni amuñ ci xalaat ànd ak ay sénégalais yu ci am xalaat boo xam ni mën na développé kii réew mi wala mu mën ko aider moom ci li muy def te joxuñu ko ko dama koy bind. Mhm. di ko yónnee ay projet yu innovant lu mu def dañ koy su maanaam li ñun liñ koy defal loolu la une opposition normale waroon def. parce que Macky Sall aussi il a été le seul président. may mhm. ma tuuti il a été le seul président bu ñëw. yore programme am ne lii laay def une opposition euh, lu mu lu mu waroon a def jël programme boobu toj ko benn par benn bu nee damay def terre ñu ne ko sëñ bi sa terre bii xaaral dem indil ko beneen terre boo xam ni loo xam leneen loo xam ne du doon teer train boo xam ni cinquante kilomètres lay lay daw jëmul fenn ñu naan mille milliards la nga dem yow defaral ko benn projet comme ñun li ñuy def ñëw indil ko ne ko sëñ daam sa projet bii ñun gis nañ ni mën nañ def jële train bu jóge fii dem def dans les zones de développement parce que infrastructure économie moo koy commandé nga ne xam ni que gars yi kat mën nañoo bay ba ginnaaw maatam mën nañ bay toute la vallée nga ne ko sa terre bi ngay def ni bàyyi ñu ñu ñu propose chemin de fer boo xam ne day jóge fii mm. jëm ba maatam jàdd fii crochet Tamba dem ba Ziguinchor ak yëpp ci moins que ci li ngay wax nii une opposition normale loolu lay def yaa may dégg ñun avec lui bés bu amul amul projet buñ ko buñ ko bindul jox ko te boo demee sur ma sur mon dans mon groupe yeewu leen boo ko ubbee nii da ko fay gis tous les projets sont là-bas te mm. tous ces projets dañ koy bind mm. nawetu ren bii nawetu ren bii j'ai été parce que man damay dañuy def prospective di wax ak ay météorologue di wax ak ay ñëpp mm. ñu xam ne nawetu ren bii dafay am problème mm-hmm. maa ngi ko yónnee benn affaire boo xam mu ngi ma tontu fan yii nii Macky tontu na la. waaw président Sall. bu ko neexee mu tontu ma bu ko neexee du ma tontu mais c' est le président la république. man considère mais parfois mu ngi lay tontu. dafa may tontu quelque fois xam nga. Mhm. mais moom moo la gën a xam ni man Badou Ndaw ma pour wuti ay post wala parce que nit ki bu la yàlla dimbalee da koy xam. man mm. à mon âge yàlla dimbali na ma ba ma toll fii li ma soxla yëpp suñu borom jàppale na ma ci. Mhm. gisuma leneen lu ma soxla mm. maanaam. bu dee oto la am naa ko xëy na suma oto gënul rafet ci oto yi mais gënu cee ñaaw te fu ma bëgg a dem daf ma fay yóbbu. Mm. li ma gën a bëgg ci lekk maa ngi koy lekk mooy cere am naa njëgam. waaw <laughs> bu dee sagaru kër la am naa kër gu ma dugg ne fii maa ko moom. Mm. xam nga mm. donc lan laay wutati ci àdduna ba pare may ma wér. ma taxaw fii di wax ak yow. mille milliards soxlawuma ko un milliard ma ko am milliard ak am mille franc laa yemale ak wala dara nekkul sama poche parce que suñu borom dimbali na ma pare. lan la ma Macky Sall di dooyee li may do li fekkoon tey dafa ne ma badu ndaw mu ne mu ne ma kaay ma jox la mbedd mi nga setalal ma ko. Mm-hmm. na ma ko na ma woo. ma seetalal ko mbedd mi léegi jox mu jox ma ay ma ne ko jox ma moyen yii ak yii ak yii ak yële te bu la wooyee jox la poste ministre doo accepté Badou ministre wu lan mais xanaa doo sénégalais am amoo droit am nekk ministre liggéeyal askan wi waaw non xaaral ça dépend ci li ñu lay wooyee xam nga woo bi ngay wax nii daf daal fa ëmb dara yaa ngi may wax kii su mel ni Sénégal kuy wax rek da ngaa bëgg dara man li ma bëgg xam naa ko xam nga lan la moom mooy que dëkk bi avancé dëkk bi ni muy avancé ce n'est pas parce que un Macky Sall woo mais tamit Badou Ndao dëkk bi ni muy avancé du théorie kese pratique da cee bokk. d'accord te yow li ngay def théorie la. non non non daf ma li may man li ma xam laa yow. dama ne la ah, dama ne la woo Macky Sall bi ngay wax dafa ëmb li muy wax parce que yaa may wax sànq ba léegi ay waxu APR. ay waxu xaw ma la dama la bëgg ne la. waaw du ne ku senegal ku jóg di wax. waaw wala ku bëgg ñu def lii rek. dangaa am loo bëgg ñu nome la wal xam nga tey jii man Macky Sall bu ma doon nommé. Mhm. benn affaire. Mhm. lan la may nommé. Mhm. ministre wu lan xaw man xaw man ministère la. mais tey moo ne ma Badou Ndao kaay ma ñëw ma toog mu ne bëgg nga liggéey. waaw ma ne ko danaa ko ne lu ñuy liggéey. dana ma lii laa bëgg nga defal ma. Mm. bu ma xoolee loolu xam ne lii mën naa ko dinaa ko ni acca waaw loolu laa la laaj Badou. mais loolu dama la ciy tontu bi leer na. voilà mais gis nga tey jii nga bëgg a xuloo fii yëpp ndax loolu. xuloowu ma dafa am yu mu yoo xam ne man intéressé wu ma. mais bu ma Badou beneen question bu ma woowoon rek ne ma Badou Ndaw kaay ma def la mise pour jox la essence jox la oto jox soxlawu ma loolu. soxlawoo loolu léegi Badou dernière question peut-être temps bi xoj nañu mais foog ñu laaj la si di euh, troisième vague Covid 19 bi nga xamante ne actuellement mi ngi def ay ravage au au Sénégal nga gis ni peut-être gestion bi des na ban jàngat nga ci am ak tamit vaccin yi yow lu siy sa xalaat actuellement ravage bi nga xamante ni variant delta bi mi ngi koy def ñu bari di faatu hôpitaux yi nee nañ fees na lii de réanimation yi amatul lu siy sa xalaat yow. non man sama xalaat maa ngi koy wax toujours sur ma page. Mm-hmm. maanaam xam nga biñ ne. gouvernement wuti na ay vaccin indi na ko. Mhm. kenn ku nekk taxaw ci internet bi. ñu wax mhm. lu nekk ci vaccin mhm. man man lijjantiwu ma la man damaa vacciné wu. damaa dem vacciné wu. xam nga di def samay mesure ni ma ko war a defee ainsi de suite. dafa am benn affaire. xam nga maa ngi gis keroog rek euh, benn booy sama benn kii bu xarañ boo xam ni dafa nekk ci kii benn médecin je vais même le citer Boubacar Signaté def benn poste moom yu am importance lay lay wax ci Covid beeg yooyu donc bi mu waxee ñu ne bon gouvernement bi day tey douze millions de doses de vaccin mhm. man xam nga gouvernement bi douze millions yi fan la ko teg parce que Sénégal fi ñuy toog ni di wax nii recensement bi mu recensé ce sont des Sénégalais qui qui l'a recensé. dix-sept millions. dix-sept millions. dix-sept millions dix-sept millions yooyu. Mhm. ñaata étranger ñoo ci ajouté wu. Mhm. étranger yooyu xam nga dañ leen war a compter. ci ñi fi nekk parce que ils sont là ils vivent ici. donc mënatoo wax ne mënatoo am Sénégal statistique bu bu valable tant que l'État xëyul un jour. Mhm. yaa may dégg recenser les sénégalais lee non sénégalais ba ñu xam ni tant de personnes ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci Sénégal fii que euh, sénégalais yi fi juddoo nii la ñu toll étrangers yi nii la ñu toll parce que y a des millions de personnes yoo xam ne Sénégal kenn reprendre ci benn statistique. Mhm. te pourtant fi la ñu nekk donc dans ça c'est problème c'est même si c'est la Covid. Mhm. du la Covid rek moom mooy problème bi noonu. Mm-hmm. même booy defar un quartier ah même booy defar un quartier dañ fa yóbbu courant ah ñu ne quartier bi ñaata kër la ñu ne quartier bi cent kër la. ñu ne bon kon Senelec dafay yóbbu foofu je sais pas de un kilowatt ou je sais pas ou quoi là. Mm -hmm. mais de suite dafay faussé parce que au moment bi ngay wax quartier boobu ne c'est y a y a cinq cent maisons. population bi nga fay kenn compté mm-hmm. te le même nombre que les gens là kooku un pays normal. doit reposer sur ay statistiques yu normal statistiques yooyu nag moo tax Covid bi tey ñu ngi ne mu ngi rey mois je je je je l'état li mu war a def mu ngi koy def. Hmm. wax dëgg fa yàlla bu ñu waxantee. état li mu war a def mi ngi koy def mu mu depuis depuis Covid bi di commencé. li état bi li mu war a def mu ngi koy def mais sénégalais yi aussi il faut ñu xolaat suñu bopp. Hmm. munoo ñëw kenn ku nekk loolu tamit c'est c'est c'est c'est c'est un sujet boo xam ni man mooy sama sujet de prédilection moom mooy civisme citoyenneté bi mënoo mm-hmm. ñëw nekk sénégalais yow su presse sénégalais nga te lu la neex ngay def nu mu la neex nga koy def te yow conséquences yi nga koy jiiñ keneen mm-hmm. parce que depuis le début état bi jël na les mesures qu'il faut moi j'habite dans un village mm-hmm. mais sama village démb rek maa ngi nekk suma suma bureau sama biir kër maa ngi nekk ci biir tool bi maa ngi dégg ci jumaa ji ñuy woote ne vaccin yi ñëw leen ñëw leen ngeen vacciné wu. Mhm. Euh, c'est un village ci mu ngi ñu ngi ci àll bi daan n'importe quel dans n'importe quel poste de santé état bi fexe na ba yóbbu fa ay kii et tout mais ku ne du ma dem vacciné wu. du ma ci kii problème de civisme encore dafay ñëw dafay dafay ah, ñëwaat en da ngay gis ni ñi di dee am ñu naan la corona amul. Ah, dañ ko créer dañ ko créer mu nekk beneen problème. mais je te dis. Mhm. loolu nag il ne faudrait pas man nag loolu moom mooy sama problème ak sénégalais yi. Mhm. toujours wax woy benn affaire xewee fee benn waaye dawal otoom sax ruuba toj ñu ne Macky Sall la wala Modou Tine il faut arrêter ça il faut que sénégalais bu ci nekk taxaw xool yow responsabilité Sénégal fi mu toll ni ban responsabilité individuelle nga ci am mm-hmm. est-ce que yow yow miy wax Macky Sall parce que Macky Sall simple président la. du mm. yàlla du yonent ba. Mm-hmm. xam nga dafa ñëw il a des limites ay ay instituts koo fi mënti teg dafay am ay limites. mais munuñ taxaw lu xew ñu ne Macky Sall moo ko fi def wala lu xew na sénégalais bu nekk. jël responsabilité. xool lu tax Sénégal jël bokk ci pays jël ndaare nga xool yow ndax suba ba ngoon def nga benn action bu positive boo xam ni yow. avancé lool na la wala avancé noo yow yow rek yow kese avancé lool sa quartier wala wala dara mais mënul nag kenn ku nekk <laughs> c'est pas vrai ñu bàyyi la nga tàggatoo auditeurs yi Badou Ndao la médiateur ben maa ngi tàggalu ko auditeurs yi puisque yow moom. <laughs> jaaw bousculé naa ko mais moom tamit mayu ma dara. ah non loo bëgg ma may la man ka fi ma bëgg a yóbbu laa xamul fan la. xam nga yéen journalistes yi aussi problème ngeen Sénégal ah. il faut que ngeen génn seen débat yu terre à terre yi yéegal débat bi mu yéeg ci kaw. way mm. génn ci affaire. non bu ñu xas nag bu ñu xas. xasuma leen li ngeen di ah, def. vous avez une mission. Mm. c'est-à-dire que mission bi ngeen am xam nga yow dama lay remercier toujours. Mm. que damay gis ne yaa ngi so da ngay génn. ci des chantiers des chantiers battus. dama loo koy wax chaque fois mais il faudrait que aussi mooy li moy wax ci sénégalais yi rek la presse il faudrait que mu xam mission avion day daanu fële sax ñu woo. opposition woo on a un type alors que ñoom seen ñooñu li seen yoon ci am yóbbu médiateur ah, ñu koy remercier bu baax a baax Alioune Badara Ndao nekk ancien douanier écrivain président bu mouvement acteur action civique ñu koy remercier ci disponibilité am di leen remercier yéen tamit suñu auditeur di remercier Diawa Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème beneen invité émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube bu Rewmi officiel wala internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf